برب الكريم الواسع la كريم المنزل

تسديدي waaw Aziz Aziz euh, Aziz Ndiaye bu moom ak Baye Ndiaye ñooy waxtaan ak Serigne Bass Abdou Khadre gannaaw bi ñu ñëwee indi leen xam ne moo di euh, ay nekk yu bëree ba nit doxee seen ziar ba di participer ci màggal Touba bi ñoom ñaar a waxtaan ak moom Serigne Bass Abdou Khadre di waxtaan ak Aziz Ndiaye ànd ak euh, ngi noonu toog ngeen nar leen ngeen leen dégg noonu ñuy waxtaan. ñuy jëflante kóllëre macha allah muy doon loo xam ne rafet na lool ci màggal gi Aziz Ndiaye ànd ak njabootam ànd ak ay xaritam ñu gis leen ñu toog noonu di waxtaan di jëflante yu baax macha allah sëriñ Bass Abdou Khadre ñu noonu moo fi teewal ki nga xam ne moo di sëriñ Mountakha Bassirou toog nag nar waxtaan ak ñoom bu baax a baax gis nga ña ngay ña ngay waxtaan ña ngay ree allah ci jikko ju rafet ja macha allah ci waxin bu rafet ba waxin bu taaru ba ngeen gis ñu ngi fii nag ci résidence ci wàccaayu màggal gi macha allah ñu toog nar waxtaan bu baax a baax Serigne Bass Abdou Khadir toog noonu di waxtaan ak Aziz Ndiaye Baye Ndiaye ngi noonu di ko jege waaw ngi noonu di jege kooku di Baye Ndiaye mu ngay waxtaan ak moom ñu ngi ñu ngi waxtaan lépp ci wàccaayu màggal gi lii dafa rafet ndax ñoom ñaar ko leen xam xam ne ay taalibe Serigne Babacar lañ waaye itam. Euh, ñu famille yëpp benn lañ njaboot yëpp benn lañ indi seen i ziar ay nag yi bëree bëri ak yu diwlin jadoox Aliou Aziz Aly Ndiaye ak Baye Aly Ndiaye ñoom ñoom ànd ak seen i njaboot seen i xarit seen i mbokk ñëw nag ne sëñ bi dañuy jàpp ci bés bi macha allah Aziz ma ngay kon ni di waxtaan ak sëñ Bass Abdou Khadre asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëriñ bi mu ne ñu ngi nuyu Abdou Aziz Ndiaye ak mboolem rakam yi mu àndal ak mboolem bokkam yi mu àndal ñëpp ak bokki taalib yi mu àndal yëpp di ko sant bu baax di ko gërëm mu ne ndax ñëw na fi ci màggal gi indi fi ay taraanga ay nag ak yeneen taraanga yu baree bari mu ne lépp defu ko lépp defu ko lu dul mottali kóllëre gum fasante woon ak sëriñ bii mu ne waaye li ci ëpp mu ne waaye li ci ëpp nag mooy mottali kóllëreem ak turandoom muy sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine mu ne loolu moo wara mu def lii mu def mu ne ndax xam na diggante moom xam cofeel gi mu amoon ci moom ak jàpp gi mu ko jàppoon mu ne waaye moom miitam mu ne moom moo tax fu mu toll sama xel dem ci moom mukk mu ne na gën si débb ñu ngi koy waxtaane kon moom yàlla def na mu ne yàlla boole na ko ci ñi nga xam ne seeni tur seenu tur du far mukk ba àddunay tukki ndax jëf yu baax yi mu daan jëf mu ne waaye itam mu ne waaye yàlla dafa defoon mu seddu ko loo xam ne mu ne ba àdduna tukki moom it moom mii du ko fàtte mu ne kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaanal ak njabootam képp ko yaakaar mu ne ndax nii Aziz def mu ne li ëpp ci taalibi sëriñ nii Aziz def noonu la taalibi yooyu def ndax xam diggante moom moom rek xam cofeel gi amoon seen diggante mu ne wax na ko léegi tam ne ko fa mu tëdd ca barsàq te jëf jii nga jëf xolam sedd na ci ndax noonu la daan jëfanteeg moom kon soo ko motalee ba fii yëg nañ ko bu baax mu ne kon teraanga yi mu fi indi yëpp yëg nañ ko ak teraanga yi nga def ci dëkk bi yàlla na ko yàlla fay nga yàgg koo jëf te sunu borom gën la koo man loo ci darajey bis bi mu ne di nuyu doomi alaaji Seex Samb ndax moom itam waay juram diggante mook Sëriñ Abdu ñëpp xam na ko mu ne sama kóllëre moom ci sëñ Abdu la jóge mu ne waaye ñi fi bàyyi itam sàmm nañ kóllëre ga ba cër bi ma ci boppam ñoom it noonu la nee na kon ñu ngi koy sàmm ñu ne ñoom ñu ngi leen di jaanal ndax seen waajur jàmbaar la woon lool yàlla yàlla gën leen a dëgëral te sàmm leen mu ne mission bi mu doon ndox ci këri diine yi mu ne suñ borom borom ci wala si na amanu wa tabiakum wa tabiatukum surriyatuhum bi imaani alxaqna bihim duriyatihim nee na man mii di wax waaw ndax loolu ma leeral ko sëñ bi ñoom ñi toog ñu xam ko man sëñ Malick Bachine moo jur sama waajur sëñ Malick Bachine Matar Penda ko jur Matar Penda ak Ousmane mi jur Alaaji Malick ñoo bokk benn baay noonu laa demee waaw kon lool la sëñ bëggoon leeral ngeen xam ko rek waaw <laughs> jërëjëf c'est juste pour symboliser rek une solidarité confrérique bi dox ci këru diine yi nekk ci Sénégal yëpp nga xam ni ñun dañu ñëw fii tey ziare ci Serigne Bass pour ziare ci xalif général bi ndax ñëpp xamoon nañ suñu diggante suñu turandoo sëñ Abdou Aziz Al Amine ak Serigne Bass Abdou Khadre nga xam ni relation bu fraternelle la amoon loolu moo tax tey ñun ñu ñëw ci Touba en tant que ay doomu Serigne Abdou Aziz Al Amine en tant que ay taalibeem ñëw ci Touba indi suñu addiya indi suñu ziar ngir. fas yéene indi suñu contribution ci màggal gu mag gi nga xam ni suñu maam ju baax ji Seexul Xaddim moo ko woote woon moo tax ñu ñëw fii ci Touba. Hmm. Hmm. dañ ciy sant yàlla bu baax ndax ñun suñu mag ñu baax ñi loolu lañu jàngal man gëm naa ni sax ñaari tarixa mu senegal lépp benn la ndax yàlla subhaanahu wa def na ni Sénégal li fi am amul fenn ndax mag ñu baax ñi ñu yàlla may suñu maam borom Touba suñu maam Seydil Hadji Malick suñu maam Bou Kounta ak Limaamu Laay ba ci Baye Niass mag ñooñu dañu jàngaloon solidarité te solidarité boobu moo tax tey jàmm ji am Sénégal yàlla def ko fi te dëkk yi nga xam ne wër nañ ñu amuñu ko ñun yàlla def ñu dénk ay kilifa dañu dénk ñu nekk ay taalibe boo tax na solidarité confrérique boobu dañ ko war a dund loolu dafa nekk cëslaayu jàmmul Sénégal kon yàlla nañ ko yàlla suuxatal ba ñun ndaw ñu aussi itam nañuy gën di fësal li ñu baax la li ñu rafet la li ñu moom muy li ñu mag ñu baax ñu jàngal ba tax na ñun ñu ngi ci kontaan trop suñu teewaay Touba bokk na ci ndég yi gën a am doole yi nga xam ne mës nañ ko bég ndax Touba dëkk bu sell la boo xam ne dëkku jaamukaay yàlla dëkku nitu yàlla la jaadu na ci Sénégal bu nekk nga approprier ko jël Touba def ko sa yëfu bopp ndax suñu maam ju baax ji visite de patrimoine national la suñu maam borom Touba ñëpp a ko bokk Sénégal yëpp a ko bokk àdduna yëpp ko bokk ba na ñun tey jaadu nañu ñu ñëw fi en tant que sénégal en tant que jullit en tant que taalibe en tant que mbokk. ñu ñëw rek defe ko ni ko sëñ bi bëgge woon ñëw jaamu si yàlla ñaan si fi yàlla subhaanahu wa jéggalu suñu ay bàkkaar ñaan yàlla ñi fi nekk tey mag ñu baax yàlla yokk seen ay leer te taas ñu ci seen baaki loolu mooy dénkaane bi te loolu la bu ñu sañoon daal ndaw yëpp jublu ci yoonu diine jublu ci def lu baax. jublu ci lislaam ndax amuñu lu dul lislaam te lislaam rek moo fi nekk asalaam ah ñun de maa ngi lay fay hmm. xanaa kontaan rek ak santaat yàlla bu baax a baax jëri ci bi salaa salaam sant Serigne Touba ndax Abdoulaye Sy dafa firndeel wëlëri wi doxoon diggante sëñ Abdou ak sëñ Bass Abdoul Khadir ndax ñun ñi mat nañ ci seere ndax tabaski yi jàll rek eh, xéwal yi ñu fa doon yóbbu man maa ko yóbboon ci suñu waa kër sëñ Abdou yi sëñ Babacar ak i rakkam sëñ Abdou Aziz Ndiaye nag eh, sëñ Abdou ci boppam moo ko joxoon ndigal ngir mu toppatoo sëñ Bass Abdou Khadim ak ñu mu ko bokkal sëriñ Touba yëpp mu ànd ak Baye Ndiaye rakkam ji ak sëñ Mat Diop mi nga xam ne suñu mbokk la suñu lépp la ak mboolem sëñ Maxtaar Lo ñoom ak mboolem mbokk yëpp ñëw firndeel njabar bu mas yëngali sëñ Bass wax sëñ Bass da ko wax ne ko wóor na ma ne day toolu sëñ bi moom seet na ko tënk ndax jëf moom yaa ngi doktoor sàmm nga xam ne macha allah mooy defar rek moo ko a jóg ndax bàyyam kese la di ñëw loolu ko sëriñ bi wax léegi daal dañ ciy sant rek ndax ñun ay taalibi bu ñu gisee taalibi yëpp àndoon nekk benn loolu dañ ciy sant yàlla baax a baax te xam ne loolu rek mooy mooy doxal noonu la suñu borom bëgg yonent bi saa loolu digle woon mag ñu baax ñëpp loolu lañ doon dox ñun ñii man mii di wax samay maam rek moo tëj Tiwaawan ndax sama maam bi nga xam ne moo jur sama yaay yaay yaay àll yaay yaay àll yaay bi ñu bokk benn baay caawoon suñu nañ bu baax a baax di ñaan suñu borom nag mu koo man moo ki rakkam moo mu def yàlla a man te màggal gi gën Sëriñ moo waxoon ñaar ñu denn kenn ki ko fonk kenn ki di ko ñàkk fonk waxtu wu ne kenn ki di ko fonk ne dana gis lu mu rabee ka ci des loolu teg nañ suñu bët mboolem ñu fonk màggal gi ci kanam rek kon nag ñu ngi koy ñaanal suñu borom jëmale kanam ci sëñ Bass Abdou Khadre wax doy na jàppal na ko wulër yi jàpp na ko parce que yéene ànd ak ñoom ci lépp noonu lañ koy def incha allah rabbi sant nañ ko bu baax a baax jërëjëf